daf ñëw war ngir ñu di ko waxtaane waaye ñu di ko fàttalanteek mbokku auditeurs yi Rewmi ci waxtaanu fajar bi ñaari xéewal yooyu benn bi mooy xéewalu ibaadaat mooy xéewalu jaamu yàlla yañ doon jëfandikoo waxtu su néew ci ginnaaw waaye ñaareeli xéewal bi mooy xéewalu jàmmi yaram bi nga xamante ne moom la suñu borom tabaraka wa taala yénkeewal te mooy xéwalu nelaw mbokk yi jaam bi dafa war di sant yàlla saa ndax ñaari jëfandikukaay yooyu doomu aadama bi di jëfandikoo benn bi di askan jullit ñi ñu di ko jëfandikoo waaye weneen xéewal wi muy askanu mbindaafoon mboolem seen ñu bokk di ko jëfandikoo te muy xéewalu nelaw xéewal ba jullit ñi di jëfandikoo mooy xéewalu tàmbali bés bi nga xamante ne mooy njëlbeenu bés ba ñu wara tàmbali seen dund yàlla xéewale leen ñu fekkee julli fajar gannaaw bu ñu déggee noddkat bi di nodd ne asalaatu julli xayrun moo gën mina nawum ci nelaw bi ngeen di nelaw julli de moo gën nelaw bi ngeen nekkee kon képp koo xamante ne yeew nga ci nelaw boobu nga daldi waajalal sa bopp dem remplir li nga xamante ne mooy woote bañ la woo ci jàkk ji yonent bi sallallahu alayhi wa nee na la loolu da di jëf bi nga xamante ne borom bi daka sopp lool te malaaka yi dinañ la seede fa yàlla ne sa jaam bi de saa yu ñu wàccee ci kaw suuf si dinañ ko fekk mu ne yëmm taxaw ci sàppe si waaye jamono bu ñuy yéeg dinañ ko bàyyi ci jàq ji mu di xaar weneen waxtu yu julli wala mu nekk fa di fa jàng alquran wala mu nekk fa di tocc toccaaral la nga xamante ne noonu lay sàbbale sa tur kon nga gis ne malaaka yi bu fekkente ne dañuy seede jaamu yàlla bi fa yàlla kon war nañoo am yaakaar ci jëmm jooju ëllëg keroog bés pénc yàlla dina ko boole ci ñu texe ndax képp ku malaaka yi seede fa yàlla ne sa jaam bi de saa yu ñuy wàcc si kaw suuf si dinañ ko fekk ci jàkk ji waaye jamono bu ñuy yéeg dinañ ko bàyyi ci jàkk ji seede bi ni mel malaaka yi képp kuñ ko seedeel ci kanamu sa borom yow sa mbir mënees nañ si am yaakaar ju toll ni yàlla dina la jéggal say bàkkaar te dina la boole si jaamam ñu muy boole ci ñi texi ñi yàlla ñu yàlla kattanal ñuy wuyu woote ba noddukat bi di woote yàlla ñu yàlla jàppandal ñuy remplir la nga xamante ne mooy la noddukat bi di woote yomb na yàlla sañ na ko yan nañu ko yàlla defal kon mbokk yi loolu di njëlbeenu xéwal ba ñu yàlla xéwalal ci ginnaaw tuuti rek ñu nekk ci jàkka ji ñuy joxe faratay julli fajar yan nañu ko yàlla nangul yàlla nañu ko yàlla boole nangul amin ya rabbal mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot mu ngi leen di fàttali ne rek ñaareeli xéewal bi nag mooy xéewal ba ñu yàlla yenkeewal ci waxtu su néew ci ginnaaw te mooy xéewalu nelaw xéewalu nelaw jooju buur yàlla tabaraka wa mu duñu ko baaxee ci suñu téere bu mag bi di alquraanul karim buur yàlla tabaraka wa taala bu ñu demee xool ca suratul ruum yàlla tabaraka wa mu ñu fay baaxee ne ñu wa min ayaatihi manaamukum billeyli wannahaar wa btigaaukum min fadlihi inna fi dalika la ayatin li qawmin yasmaun buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñuy wax ne wa min ayaatihi bokk ci kawtifam ya nekk fa moom yàlla te mu baaxee ñu ko moo kawtif boobu mooy manaamukum billeyl nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi wan na xaar ak bëccëg bi nga xamante ne mooy jamono ji nga xamante ne dañuy kër-këri wabtigha'ukum min fadlihi dañuy géema daw di kër-këri di fàggu di sakku ngéneel ba ñu yàlla tasal ci kaw suuf si mu doon suñu wërsëg ngir ñu warse war a mën a fàggu la ñuy dund yàlla nee na nag kawteef bi di nelaw kawteef bi di guddi kawteef bi di kilima ba nekk ci bëccëg ak kër-kër dang-dang ba ngeen di kër-këri di ko dang-dangi ngir sàkku ngëneel ba leen yàlla tasal ci kaw suuf si loolu yépp yàlla nee na inna fi daalika mu ngi ci loolu ma leen wax laayaatin kawtif joo xamante ne li xawmin ñeel nit ñi nga xamante yasmaun dañuy dégg la leen alquran di nettali dañ koy dégg di ko déglu di ko jëfe waaye dañuy nangu déglu la leen yonent bi sallallahu alayhi wa di baaxe te dañ koy nangu déglu dégg ko ba noppi di ko jëfee kon yàlla suñu borom tabaaraka wa bu ne ñay nangoo dégg la leen di joxoñ ñooñu ñooy war a mën a bénéficier wu kawtéef bam ñuy nettalil na muy nelawuloo jëmm yi ak kawtéef ba nekk ci climat ba nekk ci guddi ak li ci la ci nekk ci ay kawtif bu fekkente ne yàlla nee na loolu yëpp dafa bokk ci kawtifam kon lii nañ leen ci dindi scientifique yi xamuñu ci lenn nañ leen ci ne kaccat waaw nañ leen ci dindi intellectuel yi xamuñu ci lenn nañ leen ci dindi buxaaba yi ndax ñoomit it xamuñu ci kawtiif bi lenn xamuñu ci dara ñoog ñoom ñoo bokk yem ci kawtif ba ñu yàlla di joxoñ ci nelaw ba ñuy nelaw ci guddi ak climat ba nekk ci guddi ak bëccëg ak climat ba nekk ci bëccëg yàlla nee na nag loolu kaawteef ña koy xalaat mooy yow mi nangoo déglu qaala allahu wa qaala rasul yow mii nangoo dégg yàlla nee na ak yonent bi nee na yow la yàlla di joxoñal kaawteef ba nekk ci nelaw waaye kaawteef ba nekk ci climat bañ naan guddi waaye yow la di yàlla waxal kaawteef ba nekk ci climat bañ naan bëccëg moo tax mu ne inna fi daalika mu ngi ci loolu ma joxoñal la ñu doon kawteef ju nga xamante ne ñàkk war a mën a bénéficier wu du ñenn lu ñu ñu dut li qawmin yasmaun kuréel yi nga xamante ne dañuy dégg la leen yàlla wax waaye dañuy nangoo dégg la leen bi joxoñ sallallahu alayhi wa sallam tax na yonent boobu moo ñu ne xéwal jooju yàlla yenkeewal doomu aadama yi te mu bokk ci kawtéef ya nekk fa moom yàlla saa yu ñuy jëfandikoo kawtéef jooju walla xéwal jooju di nelaw yonent bi nee na buñ ci noppee dañu war a sant yàlla ne ko alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yu matale yi ak cant yu kawe yi ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne ahyaana moo ñu dundal baadama amatana gannaaw bu mu dogalee si ñun dee bu ndaw mu di faatu ah mu delloo ñu suñu ruux te tamit wa ilayhi nushur te ci moom yàlla la ñuy dellu bu ñu demee xool ca suratul zumar ba nekk ci alquran dinañ fa fekk bur yàlla nee na bokk na ci kawteefu yàlla yi allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qada alayha almawt wa yursilu al ila ajalin musamma yàlla nee na nag inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun buur yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi nee nañu moom mooy buur bi nga xamante ne moo am kattan ak sañ-sañ man-man ci lam ñu bëgg a wax si nii moo tax moom dong ngay gis ne moo ne moom rek moo ko man te moom dong moo koy def moo tax nga gis buur yàlla ne ñu allahu yàlla buur bi nga xamante ne moo leen moom te moo leen bind mooy seen boroom mooy kii mën mooy kii jëf te mu man lam leen wax lam leen bëgg a wax si nii moo tax mu ne allahu yàlla yatawafal anfusa mooy kiy faat bakken yi xiina mawtiha jamono bu ñu war a suubu ci dee bu ndaw di nelaw walliti lam tamut bakken ji nga xamante ne yàlla soxlawu ko faat fii manaamiha ci jamono ba muy nelaw loolu yàlla da koy bàyyi waaye nag fa yumsiku lati qada alayha al mawt nee man yàlla nag may buur bi nangu di jàpp di tiye di faat bakken ji nga xamante ne maa sopp maa namm ci bakken jooju ngir mu faatu waaye nag bi léegi wa yurusilul uxra may delloo di yónni weneen bakken bi nga xamante ne soxlawuma ko mu nar ko fi bay mu dund ilaa ajalin musamma bi keroog waxtu dëxalante ba ma dëxalante ko moom bu jotee ma daal di ko fi jëlee yàlla nee na nag limaleen ma fii joxoñ inna fii daalika mu ngi ci li ma leen joxoñal fii laa yaatin kawtif yi nga xamante ne ñàkk war a mën a xelaat mooy li xawmin kuréel wi nga xamante ni yatafakkaroon dañuy nàmm seen xel ak seen xelaat di xelaat mbiru yàlla yi di xelaat kawtifu yàlla yi ña nga fanaan loon démb anañu am na ñu si dem lu tax ñu bàyyi la yow ngay continuer di dund looloo soob yàlla ñamu jël looloo soob yàlla nga gis ne fii ndeke bakken dinañu séddale ko ñetti pàcc kii day sëngéem du nelaw nelaw yu xuut waaye du doon bay ñàkk nelaw moom day sëngéem rekk léegi-léegi mu këpp-këppal bët yi léegi-léegi mu ximmele ko lu mel ni suñu gaañu baax ñi nga xamante ne am na ñoo xamante ne dañuy siitu kaaraange ñenn ñi ci seeni béréb ñoom it ah ñu ngi ci biir nelaw ba yàlla di tegtal fii ci premier pàcc bi walliti lam tamutu fii manaamiha ñooñu yàlla ñoom lay waxal ñoo xamante ne dañuy këpp këppaaral seeni bët waaw du ñu nelaw nelaw bu xuut du ñu sangoo mbàjj du ñu sangoo sër waaye ñoom dañuy këpp këppal rek waaw léegi léegi nga gis nelaw bi ñëw ëpp leen doole ñu daal di jayaxu ñu daal di yeewu waaw léegi léegi ambee na yow bu naaw seen wuutu nopp yow boobu daal di leen yee ñu ximbiliku ñu nekk en conscience waaw noonu lañ koy jàppee ba keroog bët di set waaw yàlla nee na ñooñu melokaan yooyu ñuy nekkee. nelaw ju digg doomu jooju ñuy nekke loolu man maa leen koy yenkewal maa leen koy baaxee waaw léegi-léegi ñu sëngéem nga jayaxu waaw léegi-léegi nga gis jayaxu yu neex nga gis waaju jayaxu ba mbëkk allah macha allah loolu yépp xeetu nelaw yu neex yooyu xeetu nelaw yu digg doomu yooyu yàlla nee na man maa koy roof ki ma soob waaw waaye ba léegi nag waaw ah, ki nga xamante ne ci nelaw ba muy nelaw fa la war a jaaree ñëw wuyu si ma loolu tamit sama coobare laa koy defee waaw man lay soob ma jaarale koo xamante ne dama ko war a jëlee ci àddina ci nelaw ba mu tàmbalee mu nekk di nelaw nelaw bi ni mel bi keroog bis pénc waaw kooku daal bu xasee ba nelaw bu ma jëlee ruux bi daal kooku ci nelaw boobu lay jaaree wuyu ci ma yàlla moo tax mu ne fa yumsiku may tiye allati la nga xamante ne ci bakken yi qada alayha al mawt maa dogal ci bakken jooju dee ma daldi rey bakken jooju faat ko bakken boobu dootul dund jëmm jooju la ñuy sang toppatoo ko jullee ko dem gas bi mu xóot jëbal ko boroomam waaye nee na beneen bakkenaa ngi nii bi nga xamante ne wa yurusilul oxra ila ajali musamma bakken bi nga xamante ne namm naa ci moom mu dundu ba mu daldi matal la ma dëxalantek moom appam bu jotee ma daldi ko jëlee ci kaw suuf si ba léegi man yàlla may programme bakken ja war a dellu ci jëmm ba mu génne woon waaw jëmm ja mu génnee woon man yàlla maa ko ci delloo mu dundaat weneen dundin kon yonent bi nee na mi yàlla delloo sa ruux yow mi yàlla bàyyeewul ngay nelaw nelawu jayaxu yow mi yàlla jëlul sa ruux faatu la reyu la ci dee dëggintaan lu dul dalaa faat ci dee bu ndaw bu ñu naan nelaw mu soob ko mu delloo la sa ruux mu soob ko delloo la sa bakkan kon yonent bi nee na bu ximmaliku da nga war a sant yàlla buur bi la muccal ci nelawu jayaxu waaye mu musal la jëlul sa ruux waaye mu boolee la wa yurusilul oxra ila ajali musamma mu boole la ci ñi mu delloo seeni ruux ba keroog seen app di jot kon yow yaa yey ñaan ci ñaan bala yonent bi ne boo yeewoo ci nelaw ñaan boobu nga war a ñaan mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yi kawee ñeen lañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne moo ma faat nelaw noppi ci mu delloo ma sama ruux te bu ma fi jógee ci moom dong lay dellu yàlla nee na nag li ma lay joxoñ ci nelaw ba may nelawloo kay jayaxu waaye bakken ba ma soob ba ko téye fa man yàlla ma faat ko way bakken jama delloo ci jëmmam moo am occasion dunduwaat benn dunduwin yàlla nee na ñetti tegtal yamala tegtal nii yàlla nee na inna fi daalika mu ngi ci li ma la wax nii laayaatin kawtif bi nga xamante ne li xawmin ñàkk war a mën a bénéfice ñooy ñan mooy yetafakkaroon ñuy xelaat mbiru yàlla ñuy nàmm seen xel di xelaat bakken ya babbeeku daw fa yàlla yàlla dogal ñii di jayaxu yàlla dogal ci ñii dee yàlla dogal ci ñii delloo leen seen ruux ñay xelaat xelaatin bi ni mel ñooñu la yàlla di tegtal aaya bi kon yow mi delloo yow mi ñu delloo sa ruux sa yonent bi nee na bu fekkente ne dund nga beneen dunduñ la la war mooy nga sant yàlla ci xiiwal ba nga xamante ne delloo na la sa ruux ci jamono bi nga xamante ne moom nga ximbiliku mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 mu di waxtaanu diine ñu di ko wittalantik yéen ñaan ba ñëw ci bés ni ki tey mooy allahumma inni asaluka wasta jiiru bika min annaar yow doomu aadama bi del ñaan yàlla di ko ne buur yàlla ma lay ñaan yàlla nga ma may arjanna këru xéwal ba nekk fa yow waaye maa ngi lay ñaan yàlla nga ma musal këru mbugal ba nekk fa yow di safara kon ñu ñu ngi koy ñaan di talal suñu yoxo di ko ne allahumma buur yàlla yow mi ñu moom binduñu ñu inni asaluka al janna ñun de ñu ngi nii talal suñu yoxo di la ñaan yàlla nga ñu may ca kër xewal ba nekk fa yow di aljanna wastajiru bika minan naar maa ngi sàkku ci yow nga musal ci këru safara amin yal na yàlla boole defal li mbakku yi bésu alarba di tey di ñeenti fan ci ñenn ñi waaye mu di ñetti fan ci ñeneen ñi di leen fàttali ne rek des na suñu digganteeg ashura di fukkeelu fan ci tamxarit juróom benni fan ci ñenn ñi waaye juróomi fan moo des suñu diggante fukkeelu bés bi ci weeru tamxarit ci ñeneen ñi li ci munti nekk daal ñuy ñaan yàlla suñu boroom fukkeelu fan bi buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi te lépp lu ñu fa jaamu yàlla yal nañu ko buur yàlla nangul amin yaa alamin te ñu ngi leen di ñaanal yàlla at bu bees bi mooy atum mille quatre quarante sixième année bi mille quatre cent quarante sixième année mooy ren ji ci atum jullit ñi waaw ci atum jullit ñi mooy gàddaay yonentu bi mille quatre cent quarante six mooy junneeg ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn at waaw junneeg ñeent fukk ak ñeent junneeg ñeent téeméer ñeent fukk ak juróom at moo teru nii mille quatre année moo waaw kon yow mi di jullit ne jóge nga ci at bu weesu fu mu ne nii yang ci at bu bees bi na nga def bilan xool at ba nga génn atum mille quatre cent lan nga defoon lan nga wax la dox sa digganteeg sa boroom la dox sa digganteeg say mbokk lan nga doxal sa digganteeg ñeneen ñi ci lu baax nang ci góor góorlu ci li la seytaane ma ne ben ko jëf ba xam di nga tuub ba xam di dellu ginnaaw ci loole loolu yépp danga nga war a def bilan ci sa jëmm ji ndax at boobu weesu na waxtu woowu weesu na lam nañ sa téere boobu ci at woowee ubbil nañ la beneen xit bu bees ci atum jullit bi nga tàbbi nii te mooy mille quatre cent quarante sixième année bi waaw junne at ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn at bi nga xamante ni mooy atum tamxarit weeru tamxarit di at bu bees ba ñu tàbbi ni est-ce yaa ngi waajalal sa bopp ngir jëf-jëf ju baax est-ce yaa ngi waajalal sa bopp ngir laabal sa xol est-ce yaa ngi waajalal sa bopp ngir di def ak nit ñi xusnul muamala jëflante ju baax est ce que yaa ngi waajalal sa bopp ngir nga am ak nit ñi xusnul xulq jikko ju rafet est ce que yaa ngi waajalal sa bopp tere sa làmmiñ wax lu du dégg est ce que yaa ngi waajalal sa bopp respecté waxtu yu julli ci mbooloo est ce que yaa ngi waajalal sa bopp doxal yërmande sa diggante digganteeg soxna si soxna si est ce que yaa ngi waajaral sa bopp doxal yërmande sa digganteeg sa borom kër est ce que yéenaa ngi waajal seen bopp doxal yërmande seen digganteeg njaboot ñi est ce que njaboot ñi ñu ngi géem a waajalal seen bopp doxal yërmande seen diggante kilifa yi ñañu jiite ci njiitu àddina yi njiitu diine yi est-ce que ñoom it ñu ngi waajalal seen bopp laayante biir ak ña ñu jiite est-ce que ñun ñu ñu jiite ñu nit ñu ngi waajal suñu bopp ci at bu bees bi jëflante bu rafet ba ñu war a doxal suñu diggante ñu ñu jiite ci diine ji wala ñu ñuy jiite ci mbirum àddina loolu yëpp ay laajte la yoo xamante ne kenn ku nekk si ñun daka war a mën a laaj boppam su ko defee ñu tàbbi ci at bu bees bi ci bismillahi rahmaani rahim ñu dund ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu jeexalee ko wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin est-ce ñu ngi koy waajal suñu bopp ni ni mel ndax lu bari moo nekk ci yoon wi di ñëw at bi koor gaa ngi nii di dëkkmal si at bi tubus gaa ngi dëkkmal di ñëw si at bi lu bëri ngay dégmal di ñëw si est-ce que ñu ngi koy waajal pour teeru ko ak suñ yeneen i xew-xew diine yoo xamante ne bokkul ak yi est-ce que ñu ngi koy waajal kon yow mi di jullit xamal ne xit bu bees ba ñu ubbi ci sa dund bi ba tax na ñu di la fàttali xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen ko bokk déglu ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu nee na annabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ne ñu afdalul siyaam baada ramadan chahrullahi almuharram wa afdalu salaati baada alfarida salaatun leyl rawahu muslim abi hurayrata radiallahu anhu nee na naka suñ yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi moo ñu baaxee nañu gën ci koor ba doomu aadama bi di woor mooy weeru koor waaw waaye ba weeru koor jàllee woor ba gën ci woor ba doomu aadama bi di woor mooy wooru tamxarit wooru bésu tam xarit waaw nee na wooru bésu tam mooy wooru juróom fan walla fukkeelu fan mooy gën ci koor ba jàll sopp waaye mu teg si ne wa afdalu salaati baadal farida gën ci julli gannaaw julli farata yi yonent bi nee na salaa sallam mooy julli guddi julli guddi nag dafa am lu bëri la ci laxasu ci xeetu ngëneel woo xamante ne bu ko jullit ñi xamee kenn du fi nekk di nelaw guddi bi yépp waaye dangay nelaw guddi bi tuuti daldi jóg ndax ngëneel bu mag a ci nekk moo tax sallallahu alayhi wa mu ne ñu afdalu siyaami baada ramadan chahrullahi al muharram gën ci koor gannaaw weeru koor woor ba ci gën mooy weeru tamxarit woor weeru tamxarit ngénneel ba fa nekk bu ko doomu aadama yi xame dinañ ko woor moo tax mu ne ñu afdalu siyaami baada ramadan gën ci koor ya doomu aadama yi di woor gannaaw weeru koor mooy shahrullahil muharram mooy weeru yàlla ba di weeru tamxarit mu teg si ne wa afdalu salaati baada faridatin salaati leyl gannaaw julli farata yi julli bi ci gën moo ne mooy julli guddi moo mu ne wa afdalu salaati baada faridati salaatu leyl julli ba gën ci juli gannaaw julli farata yi bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy waaw mooy julli guddi ndax julli guddi bokk na ci julli yi nga xamante ne kenn mënu koo def nga di ko booleeg ngistal kenn mënu koo def nga di ko booleeg déggital waaw ndax julli guddi doy na rekk ngi jóg ngir laablu kenn du la yëg kenn du la gis kenn du la bàyyi sax xel nga yoot ndànk jël sa ndab jàpp ba sell jarul sax ngay liqaam jarul ngay jàng faatixa ci kaw jarul ngay jàng saar boo nar a teg ci faatixa ci kaw defal lépp ci suuf waaw ndax julli guddi mooy julli sirr mooy julli bi ngay def ci lu nëbb bu la neexee nit ñi bañ laa gis mooy nga bañ a taal limeer bu la neexee tamit nga bañ a yëkkati sa ci kaw moo tax yonent bi nee na julli gën ci julli gannaaw julli farata mooy julli guddi waaw su ko defee lii la leen réew Rewmi FM andil ci waxtaanu fajar ba ngeen di wéttalanteeg ñun ci waxtu bi waxtaan bi jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi war a jébbal béréb bi ñu war a joxe xibaar ci nasaraan ñuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yataqabala minna wa salih amalana wa kullu amin wa antum bi xeyr fi awtaanina wa aslih aimmatana wa wulata umuurina allahuma ihfad bilaadana ma dahara minha wa ma batan ma tasma'un baraka allahu li wa fi alqur'ani aladim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati alhakim salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.